ربي أعوذ بك من همسات سياتيني وأعوذ بك ربي أن يحضروني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمه وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما بارك برم تبا مبوكي نونغلين دي نيو باخ دي لين سيار دي جيتال تي بيك زيار بي شيخ محمد المنتخى نينكو باخو دي وخي ساسو نه يالا ياغال كو لول تي ويرال Euh, ba yéene yi mu yéene ak naan yi mu naan mu eggale yëpp te nànd kook moom waaye noonu la ñuy ñaanale mboolem njabootug sëriñ bi nekk ci ginnaaw di ziyaar yu baax ci ñam di mboolu meer na mi nga xam ni moo fi toog toogaayu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye du nuyu mbooleem seex si ak mboolem yoon wi di nuyu bu baax euh, borom kër gi di alaaji wax yu fay waaye di nuyu sëriñ Cheikh Balla mi mu teg liggéey bi ci loxoom muy kër gii di Touba TV waaye kilifa yi nga xam ne ñoo ci topp yëpp seen Jibril sëñ mbakke ñoo ngi leen di népp ak mboolem personnel bi di nuyu sëñ Pape Cheikh Bey mi nga xam ni moom jàppale tey ci caméra bi ak sama waa ji nga xam ne dama koo gëj a gis di ziyaare bu baax sëñ Daam ak sëñ Mañaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci régie bi euh, ñoom leen fas yéene àndal tey ci suñu plateau spécial bi ñu fas yéene ànd ak yéen tey nag ñu dalal ci ñoo xam ni buñ leen tuddee. yaakaar naa ne xel yu bari wala xol yu bari dina yëngatu ndax li tax mooy euh, bu ñu waxee ni ñaari guddi yu ndakaaru ñi nga xam ni ñoo yor lu jëm ci liggéey boobu ak organisation boobu ak màggal googu ñooñu ñu ngi ci lu rëy rëy ndax sëriñ bi tudd na fu ne ci ab tukki waaye foofu rek mooy ci point bu xaw a sensible boo xam ni euh, am na lu fa ne loo xam ni moom lañ fas yéenee waxtaan tey jii euh, te yàgg koo def at yu bare bare bare yag dalalit na dalal it nag tey ñu dalal fi ki nga xamni ni señ khadim Xaadim ak señ Abdou Lahad Seck ak señ Mouhamadou Mbay wala sëñ Mahamadan euh, ak señ Yirim aw mi nga xamni ni euh jëru ñu diko présenter ndax suñu kilifa la suñu jëwriñ la mën ñu wax ni moo ñu yar ci ñu ñuy def muy nangum khassida ak lu ñu ci mëna a fekk nak ba ñu ko defit lolu mom yi dafa bok ci ñi nga xamni ñoo ñu yar ca loola suñu kilifa ci fann yépp dinañ ci ñëw ci kanam comme ñoom lañu fa yéene dalal ci euh, bis yooyu nga xam ni mooy bis yoo xam ni taalibe bu ne ak morom ja ñoo ci bokk yem ndax lu metti sëriñ bi rek metti na metti na bépp taalibe bu yaakaar sëñ Tuubaa wala ab jullit wala kuy sax doomu aadama kon dañ leen di bàyyi ñu nuyoo ci nuyoo bu euh, nuyoo bu gaaw rek ngir njëkkante waxtu yi ñu daal di tàbbi ci li nga xamante ni euh, mooy kon comme sëñ Xaadim moo ma féete sama loxo di joor moom mu nuyoo su ko defee ñu doon ñëw ci ñàbb laat ñëw ci njëkk sëñ xaaral bisimilah. bisimilah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim fahimni al ilma wa zidni ilman wa amalan wa adaban wa fahma barke Seexul Xadim doole Cheikh Ibrahima Fall sëñ Moustapha ñu ngi lay siyaar baax a baax di la ndokkeel ci dalal gi waaye itam ak ubbee gi Eh, di ziar bu baax itam Baye juga jeng nga xamne mo jital kurel ñaari guddi Ndakaaru wi ak mbollem day maj mo noore ñi yëpp suñu borom guddal seenu fan di ñaanal Serigne montaka mu yag fi lool nak te and ak ak wér ak Serigne Amdi Modou Mbenda Fall ak mboolem nit ñu baax ñi di nuyu bu baax baax suñu mbokk yi ñu seqal plateau bi serigne abdullah Seck suñu kilifa Serigne Yirim mm-hmm. euh, serigne Mahmadan Mbaye waye tam di nuyu bu baax euh, sunu kilifa yi nga xam ne it ñu ngi ci biir plateau bi. Mhm. Euh, kon xam naa ñu delloo kàddu gi rek. incha allah mhm. ba ci kanam. tubaarkàlla euh, sëñ Abdoulaye ñu bàyyi la ko nuyu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara. di doore ci nuyoo yi ak ziyaar yi ci Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo dalal ñu koy nuyu di ko ziyaar bu baax a baax a baax di nuyu mbokki taalib yi ñu bokkal euh, plateau bi sëñ Xaadim comme ni nga ko waxee ak sëñ Mahmadal sëñ Baye Yirim euh, ak sëñ Baye Yuga Jëng mi nga xam ne mooy jëwriñu daara ji ñu koy nuyu di ko ziyaar ak suñ mbokki taalib yi nga xamante ni ñoo euh, nekk ci plateau bi yëpp ñu ngi leen di ci jotaay bi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fas yéene wéy la liggéey bi comme noonu nga ko waxee incha allah ñaan suñu borom defal ñu bàyyi la ñoom ñoo ngi nuyu mbokku jullit yëpp di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu mbokku téléspectateur Touba TV yëpp mm-hmm. ñi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi di tàmbale nuyoo beeg siyaar bi ci xalifatul am Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mm-hmm. di ñaan suñu borom guddal fanam te may ko góor di la nuyu yow sëñ Moustapha te bu ñu la nuyoo nuyu nañ kilifa kër gi maanaam ñi ŋànk kër gi yëpp. di nuyu li nga xam ne ñoom lañu séqal plateau bi. ak mbokk yi nga xam ne ñoo toog ci jotaay bi. kon ñu wàcc foofu suñuy kàddu rek. ba jël suwaatee ñu xuus si waxtaan wi. tabarakallah jërëjëf ñu bàyyi bàyyi rim mu moom tamit bisimilah. salaamaaleykum. wa di nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di ñaanal Cheikh Mouhamadul tax yàlla dolli ko fee yàggal te wéral ko ak njabootu Cheikhul Khadim gépp ak murit yëpp di di la nuyu bu baax sëñ Moustapha di nuyu mbooleem mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi teewlu télévision Touba TV di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi sëñ Abdou Lahad Seck mi ak sëriñ ah Mamadou Mbaye ak sëriñ Khadim Ndiaye ak mbokk yi ànd ak ñun yëpp di leen nuyu bu baax di hmm. sant yàlla ci jataay bi nga xam ne yàlla boole nañu ci te muy jataayub sëriñ bi mm-hmm. euh, di ñaan rek yàlla mottali lépp ci jàmm mm-hmm. te yéene jiñ ci am ak ak ak ak ak pasteef biñ ci am yàlla defal ñu ko tawféex lépp mm-hmm. ñu bokk ko jariñoo ñun ñëpp parce que Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf jërëjëf euh, sëñ Yirim jërëjëf sëñ Khadim sëñ Abdoulaat euh, sëñ Mahamadan waaye ñu ngi siyaar baaxit sëñ Khadim Seck mi nga xam ne mooy coordinateur bi ak délégation yi nga xam ni ñoo fi teew xam naa du ñàkk bu ci kanamee ngeen lim leen ba ñu xam ni. ñoo na ñoo ñoo ñoo a ànd ci teewaayu teewaayu émission bi. waaye ci ci ci ci njëkkanteeg waxtu bi rek dañu bàyyi Sëñ Abdou Lahad mu ubbi ci wàllu li nga xamante ni mooy ñaari bis yi ngeen dëgmal. muy euh, màggal ñaari guddi yi ndakaaru ñaari guddi yi ndakaaru nag bu ko nit nit ñi dee dégg. ki koy dégg moom euh, waras waras na koo leeral. lan mooy dëgg-dëgg ñaari guddi yi ndakaaru ndax tëbuñu tëb rek di ko màggal sëñ bi jaar na fi. Mhm. waaye peut avant mu di fi jaar am na fu jaar ba ñëw fi bi mu fi jógee xëy na am na fu dem. Mhm. lan la fi daj ak lu fa xew. Mhm. ba tax loolu tey jii ñu di ko màggal. Euh, ci tënk rek euh, ngir ñi lay seetaan gën a mën a comprendre. li nga xam ne moom ngeen bëgg a def euh, ci ñaari guddi Dakar yi. bisimilah jërëjëf Cheikh Moustapha kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyuwaat te di leen ziyaaraat bu baax comme ni ko Cheikh Moustapha waxee. Euh, ñaari guddi ndakaaru di ñaari guddi yu yu tiis bu baax a baax ci mm-hmm. sëriñ bi mm-hmm. waaye tamit yu am baatin mm-hmm. yu kawe bu baax ndax feeñ ga fa rasulullahi feeñ yonent bi sallallahu alayhi wa ak soxna jaaru bi di wayjuram loolu yokk nag baatin bu baax a baax a baax a baax muy ñaari guddi yu métti nag yu tiis comme ni nga ko waxee xëy na jógul rek ñu indi fa sëriñ bi sëriñ bi laataa muy ñëw ndakaaru

ñoom sëriñ bi bu mu wootee wooteem bu rëy bii mu doon woote boo xam ne lépp yàlla la mu yar taalibe yi leen yar ci imaan ak lislaam ak lixsaan ñu wuy si ko te wuy si ko ci wuy sin woo xamante ni bëgg gin bëgg sëñ bi ak bëgg yàlla tax na ñoom dañoo jàpp ni euh, sëñ bi euh, taalibe yi euh, fonkatun kenn ndax sëñ bi rek lañ gis ak yàlla ak bi mhm. te it sëriñ bi ku ñëw ci moom day mel ni bu fekkee daa jóge ci barab kooku da koy ñàkk loolu nak tax ñu tàmbali di jaxase taalibe yi ak serigne bi xala yoyu mo tax ba bur yi nga xamanteni ñoo doon bur yi aduna yi bind nañu ay euh jébal ko gouverneur bu Louga pour mu jox ko Merlin serigne bi tamit jamono yoyu doon na doon na doon doon na léral di leen wax ne loolu ay tuuma la lég lég mu yebal mam Thierno lég lég mu bind tamit ab bataxal dem na ba bind mam ba bind mam Thierno ab bataxal bo xamni bi mu ko yonne da ko ni neel merle bu mu déglu waxi ñi nga xamante ne dañuy rambaaj tey wut tey wut àdduna mm-hmm. ndax wax yooyu waxi rambaaj rek la kon sëñ bi moom teeloon naa xam loola mm-hmm. waaye wax yooyu tamit bu mu eggee ci gouverneur bu Louga bi te mu yeb woon ci mbojjëm sëriñ bi lool sëriñ bi nee na ginnaaw dogalub yàlla euh, moom ak génnam ci moom la jaare mm-hmm. te it mu doonoon gorob merle mi nga xamante ni moo doonoon kilifa ak Ndar loolu mo taxone mu taxaw ci taxaway bo xam da dañoo taxaw temm ci ni serigne bi dañu koy génn te loolu nak doon sabab bo xamanteni ni sababu zaahir la loolu mo tax serigne bi wax ni ah ixraajuhu ila al bilad wa adkhala al ilaha fi qulubi man tasabbabu fi naqlihi zaaka zaman ixraajuhu ila al bilad al na'iya wa nal fiha fawqa samkh sariya kon day melni ni fawqa samxi saariya boobu mooy jëm mooy jëmmi xéewal gi nga xamanteni mom la serigne bi am nga xamni lolu kaw na way bo xamanteni man mën nañu koo misaal xam naa bu ñu dee ñëw ci saliya ku ñu min aw turam la ci histoire waaye Seydina Omar ibnul khattab dafa nekkon di khutba ci madinatul munawwara bi mi khutba yoni won saliya mu demon ab xare ànd ak ab arme way bi mu deme ba ba ba ci ba ci jamono am ñoo xamanteni ni dañoo dëgmal saariya waaye Seydina Omar fi mu ne gis bu sori bi mu amé ak karama gi mu am daa wax ne as saariya saariya dal ko xool xool ko mu ko ne aljabala làqatul ci montagne bi mu làqu ci montagne bi saaree noonu noonu la ko déggee te noonu la mucc ci ñoom dégg gu kawe googu nag nga xam ni baati na lool sëriñ bi nee na li ma amee ci tukki bi kawe na loola kon mooy mooy mooy mooy payek sëriñ bi rek waaye neen nag suñu borom moo def ci seeni xol ñoom nasaraan yi def ci seeni xol ak ragal goo xamante ni moo doon sababu ñu génn ma nee na ci la amee teraanga yooyu. kon loolu moo tax ñu bind sëriñ bi ab leetar maam Thierno dem na. ñëwaat na waaye fekk na sëriñ bi ci jëmmi boppam moom waaj pour génn. génn gi muy génn tamit ndigalal sunu borom la ci am. comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu gàddaaye woon génn te am ci ndigalal sunu borom. ndax sunu borom subhaanahu wa taala daa waqante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ni ko wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yusbituuka aw yaxtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah والله خير الماكرين نوني مكي نيغي لاي فخيل غير ген لا نوني مكي نيغي لاي فخيل غير فات لا نوني مكي نيغي لاي فخيل غير تج لا سي مك واي سيرين بي نينا لولي سي بوبوم دوغال بوبو دا واتي سي موم واي لانيو لانيو لانيو موجي ديبو موي يونت بي ген واي سيرين سيرين بي نك نينا يونت بي سي نديغال سون بروم لا ген موني بي اس خاجر بي اسنه بي امر mu ne yonent bi ci ndigal suñu borom daal la génne mhm. kon yonent bi mu génnee ci ndigal suñu borom sëriñ beet mhm. dafa mel ni ñoom bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu waxtaanee mhm. waa conseil privé bi ñu waxtaanee ba pare dañoo wax ne sëriñ bi moom it dañ koy exilé génne ko nga xam ne gis nga ni mu doon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëriñ Seexul Xadiim bi muy waaj di génn dafa wax ne yonente bi seng na ko ba pare daldi ko ni izhab wala taxsal garar mm-hmm. demal te bu ragal dara kon moom it génn na waaye ci baatin day mel ni ñoom ñoo ko jël si mm-hmm. waaye ci zahir day mel ni ñoo ko jël si waaye ci baatin ñoom euh, sëriñ bi ci boppam moom daa génn ci ndigal suñu borom subhanahu wa taala kon génn googu mu génn jaar euh, Louga jaar kokki soog a jaar kokki dem luga dem Louga dem jóge Louga jëm Ndar Ndar googu fa la ñu àttee àtteb sëriñ bi ci nañ ko exilé waaye buñ koy exilé nañ ko nañ ko jaarale ndakaaru kon loolu moo waral néegum ndakaaru boobu sëriñ bi nee na foofee ndar yàgg na fa ndax am fa ñeent fukki fan yoo xamante ni conseil privé dañu doon xool ban att la jël ci sëriñ bi att bu ñuy jël ci sëriñ bi ndax dañu koy génne wala dañu koy tëj fii wala dañ koy faat seexul xadim yi loola sunu boroom li wax ni wallahu xayrul maakirin nee na loolu lu wér a wér la yàlla ku mën a soppi ay mbir la mm-hmm. ndaxte ñoom ñett yooyu nga xamante ne moom la dogal ci man mm-hmm. euh, di ko waxtaanee nee na ñett yooyu ñett yooyu bu ne suñ borom dama cee fay fay gu màgg màgg màgg ndax dañoo dogal ni ndax sëriñ bi dañu koy téye fii tëj ko ci ndar ba mu faatu ñu ne loolu bu ñu ko defee taalibe mi day dal ci suñu kaw mm-hmm. ñu wax ni kon nañu ko faat ñu ne est-ce que mën nañ koo faat ndax boobu boobu bool nañ ko gaynde Euh, gaynde gi dal di boofal sëñ bi kon jàpp na ne mënuñoo faat sëñ bi ñu ne kon dañ koy exiler sëñ bi ni ñett yooyu nga xamante ni moom la ñu gaaral ci man ñett yooyu de euh, weccee nan ma ci ñett yoo xam ne mënuma koo ñàkk te ñàkk ñett yooyu moo gën a metti ci man ñuy dagg samay baaraam moo gën a metti ci man it ñu may jam ay xeej ak ay ràbb mu ne ñett yooyu mooy ñett yu ma mënul woon a ñàkk la ndax bi may dem ci géej gi di jaar foofu di dem Ndakaaru mbooleem lu ñu nitug yàlla di am ci ab tolluwaay ak martaba ci imaan ak islaam ak ihsaan loolu làq làq naa ko ba pare waaye nag li nga xam ne moom laa amee ci tukki bi moom bokk na ci mooy amee naa kamaalul imaan ngëm gu mat sëkk te nee na ngëm gu mat sëkk googu mooy xam dëgg-dëgg yàlla sunu borom subhaanahu wa taala maarifatu billah mm-hmm. nee na dëgg-dëgg xam yàlla gi mu xam yàlla nga xam ne du ko joowaat le la mu la mu jàpp yàlla mooy yàlla nee na loolu moom ci tukki bi la ko amee. leen tamit am na lu ko ci weccee ci ñett yooyu muy kamalul islam nee na ci la ko amee kamalul islam gi ci amee nee na ci la amee yaqiin dëgg-dëgg ci suñu borom subhaanahu wa taala nga xam ne wóolu goo xam ni euh, lu ne na mu ko jàppee noonu la demee. nee ci la amee kamalul ihsaan muy egg ci suñu borom ba sës rëkk rëkk kon ñett yooyu ñu ko gaaraloon benn bi la benn bi lañ ko def muy exilé ko. waaye ñett yooyu yëpp suñ boroom fay na ko ko kon foofu ci ndar fole sëñ bi sax ba ñu àtte àtte boobu dogal dogal bi pour sëriñ bi génn ba mu fay dem boobu mi ngi jóge Louga bi muy jóge Louga booba euh, weeru màggal gi safar fukki fan moo ci des la des ci safar ndar la ko def waaye weeru gàmm nee na foofee la ko sax ca ndar ba weeru gàmm gi bu ñu séentoo weer wi nee na ci lañu ci la ci lañ ko exilé sëriñ bi ci alxames jooju nee na dafa yëndoo koor foofe la dal di jóge ca ndar dal di jëm ndakaaru ba mu jëmee ndakaaru nag néeg boobu nga xamante nga xamante ni moom lañ ko waajalee néeg boobu ci la tàbbee ci néeg boobu waaye wax na ni kat fexekat ya doon fexe la ñu doon fexe suñu borom dàqal nag ko ci ay lor xam naa lor yi metti na waaye sëriñ bi mujj na mujj na ci am féex ak xol am ci tamit xol bu yaatu nafaali xayri nafaali xayri laaxu نفع لخير الله وقبل قبل في خم نفع لخير الله في النكارو كل أذن لي جروه المكارو لان خمنتني مام لفحي كدي فحي وان كأي لر ففي كذا كارو لأن سن برام مام دقل نكو لان نجم جو كبه جم أمرك أك وكيل جو وكيل لو كسن برام باي لب سن برام سن برام في لو كسفة بوما ورا الله سلم بيني نبيمي جي ففي كذا كار لي يبالي وعي بيمو يبالي كار با ورا دك toll ci war a dog nga xam ne booba euh, comme timis mi nga jot yittee dog la am da kooram yittee tamit naan ndox yittee tamit julli waaye fa mu agsee la ndaw agsi ci moom ni ko wuyul sëriñ bi dal di ja jawal dal di wuy si waaye bi mu wuysoo nee na bi mu ñëwee ba agsi ci bunt bi nga xam ne mooy néeg boobu nga xamante ni dañ koo waajal nga xam ne du néeg boo xamante ni ku ñu yéene aw yiw des na la fa tàbbal xanaa ku ñu bëgg nga tàqalikook sa bakkan rek waaye sëriñ bet moom comme jaayante woon na ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci bi muy génn wax ni mbooleem loo xamante ni teg nañ ko ci yaramam jëm ji ak ngor gi moom na dékk loolu waaye ruugi rek la mënta garanteel boppam te yonent bi jox na ko garanté boobu ci sunu borom subhaanahu wa taala sëñ bi dem ak ngorom ak jomam kon ngor ak jom googu moom la dugg ci biir néeg boobu sëriñ bi nee na bi mu ñëwee ba gis néeg bi melokaan wi ni mu mel nga xam ne waaj wàccaay wi ñu ko wàccaay mooy lëndëm gi mu lëndëm ak tàngaay bi mu tàng ak xataay bi mu xat sëriñ bi moom mu xam bi ci néeg bi rek la xam ni ab nattu day wàcc waaye nag ab nattu ab jullit lañu koy tekk loolu moo tax mhm. sëriñ bi nee na taxul mu dëfu waaye dafa jubal rek dal di teg tànkab ndeyjooram waaye neen tànkab ndeyjooram ba mu teg ci néeg ba dogal bi nga xam ne moo ko fa jëkk jot mooy rabbu gi daal jam ci dàll wi ba jam ci tànk bi ba génn mm-hmm. waaye sëriñ bi dafa wax ni rek ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mm-hmm. te loolaat la sunu boroom digle woon mm-hmm. bu ngeen euh, euh, amee musiba isa sabatum musiba xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci sunu boroom la ñuy dellu <coughs> ci sunu boroom la ñu jóge te sunu la ñuy dellu koy sëñ bi bimu mu nat bi tambal rek da dellu ci sun borom subhanahu wa taala lolou lu ama lu ama am solo la ci ab julit dëgg la loolu moo tax bi mu doon tamit fofé ca guddi ga da ko magal waye wax na ni ci li bi tamit tànkab càmmoñam tamit da fekke wa tanko de jorom yakar na ni jëm ji ak fulla ji ak xam lim bëgg taxna du dëpp ben yoon lolou motax taxul mu dëpp daa wéyale tànkam càmmoñam tànkam càmmoñam. wóor ko ni tànkam di jor bi fi mu tegu. fi mu tegu moom ak tànkam càmmoñ bi ñëwee ci lu mel foofu ci lu mel noonu lay tegu waaye taxul mu <laughs> taxul mu dëpp. waaye daa delloo. kon kooku yaakaar naa ne aw fit moom. kenn kenn kenn ëpp ko waaye li ko yàlla jaral ak yonent bi ak diine. Mhm. moom jaralu ko kenn kenn kenn. waaye foofu tamit na mu mhm. aada woon di def. Mhm. aadaam moom la def rek. moom. Oh, fu mu mës a dem mhm. li doon aadam moom mooy day julli yaakaar naan loolu mhm. feeñ na ci barab yi nga xamante ne moom lañ koy màndargaale lu bëree mhm. bëree bëri euh, fu mu mën a jaar la mu fa jëkk def rek mooy julli wala fu mu mën a ne la mu fa jëkk a màndargaal mooy jàkka la fa màndargaal nga xam ne loolu daa bokk ci symbole yi lislaam yi gën a kawe symbole yooyu tamit da ko doon dundalaale fu mu mës a ne sëriñ bi dundal na fa guddi gi dundal gu gu jéggi jéggi dayoo. Mhm, foofee ci biir. foofee ci biir néeg ba. ndax yaakaar naa ni ku ñu tëj moom. Mhm. <laughs> ci prison bi mel noonu yaakaar naa ni la ngay xalaat. Mhm. di nga xalaat leneen lu dul euh, di di taxawi ak guddi jàng alxuraan waaw xam nga da ngay da ngay mm-hmm. da ngay yemen yi foofu rek euh, sëñ Abdou Lahad bañ bañ dellusiwaat ci deuxième tour bi mm-hmm. nga door a nga door a àggale ndax mm-hmm. yaakaar naa ni faaw mu nekk ñaari parti ñu njëkkanteeg waxtu bi rek waaye li nga wax léegi rek yàlla moom bu la jaralee euh, daanaka leneen lu yàlla doo ko gis doo ko gis waaw waaye nag foo xam ne boo fa nekkee ndax sëñ bi wax na ni fu mu Mm-hmm. melee ne du jaaxle sax waaye mm-hmm. fu mu mas a nekkee ci tartar ci mm-hmm. ci nattu yi rek dina fa gis soxna jaara ah, soxna jaara moom moom ku mat sëkk ndey la ndax fu mu ko mas fu mu mas a nekk ci yenn kii rek dana ñëw ni ko ba nga juddoo la nga njëkk wax mooy dinaa liggéeyal yàlla ak yonent bi lu ko kenn mas a liggéey kon na nga jàpp ne lii ci liggéey bi la waaw ah, kon yaakaar naa suñu xaadim dégg nga suñu blaat li mu wax ci wàllu taarixu li nga xam ne mooy sababu màggalu ñaari guddi ndakaaru mm-hmm. waaye man damay damay damay wax ca ca tàmbali ba ca daaru xuddoos ba muy ba muy def li litikaaf ca waaw ca ca te yonent bi fekk ko fa mm-hmm. lam waxoon rek nga xam ni moo ko mas a wax ci àddina mm-hmm. kenn déggaatu ko ndax keroog daf ni yonent bi damaa gis màggug yàlla gi fu mu yegg salaire gi yegg na fa yow yonent bi fu ñu gisee màggug yàlla gi rek dinañ gis salaire gi ci wetam ñaar yooyu nga xam ne mosuñoo tàggoo laa bëgg a ñetteel xool boobu engagement. Mm-hmm. ay façon yi ñaanam. ay façon liggéey lu nem rek niko ko suñ ni ko suñ Abdoulaye waxee. Mm-hmm. lu nem mm-hmm. ci mom la tambalé ci mom la yem. li nga xamné wax nako lan lan nga ci tégal bismillah inna waliyallah a'udhu billahi minash shaitani rajim ah, sëñ Mustafa ñu ngi ziarat bax di rafetlu kaddu yi comme niko ko sëñ Abdoul Ahad dafa am solo lol ndax euh, xamlewaat deug taarix bi ndax sëriñ bi moom da koo xamleel boppam mm-hmm. waaye dafay aajowoo mm-hmm. itam di ko def ci ay plateau mm-hmm. wala ay rajo ak yu mu demee noonu su ko defee di ko fàttaliwaat comme moom dafa waxoon ne day fàttaliku itam euh, loolu arab yi di wax rekk naan isaa aradallahu amran hayya lahul asbaab suñ borom su namee mbir jàgg day préparé sabab yi comme ñaari guddi ndakaaru yi dafa mel ni ngir mu jàggal àdduna faw sabab yi itam suñu borom préparé woon ko ci jëmi ku tedd waaye itam isa aradalaahu amran mhm. eh, isa aradalaahu nasrata fadilatin mhm. bowuyet ataha laha lisaanal xasuudi mhm, mooy li nga wax rek eh, colonialiste yi occidentaux yi ni ñu fexe ba génne sëriñ bi loolu lépp sëñ Tuubaa moom toujours ma moom abdullahi wa xadimu rasulihi rek lay nekk ñaari garaat yooyu yi ma doon wax ne damay faral di wax ne abdullahi garaat la goo xam ne ab yónent dong la ko suñ borom jagle moom kooku moom waxuñu wàlliyu maanaam tudde la ko ba moom suñ borom moo la koy wooxee ab yónent la ko suñ borom jagleel waaye suñ tubaa nag daa xare ngir am loolu ba waxal boppam ne sa maytani qataan bi abdikal xadim kon loolu dafa rëy ndax subhaanalla si asra bi abdihi ca alxuraan sallallahu alayhi wa sallam gis nga ba mu koy tagg loolu ko jëfandikoo bi ci topp mooy xaadimu rasul mooy fexe ba nekk liggéeykatum njool Makka alayhi salaam léegi nag euh, sëriñ bi li tax sëriñ Abdou Lahad li mu wax solo si rëy na lool mooy sëriñ bi lu nattu rëy rëy du daw xam nga ku ñeme dañ laa dee loolu la wolof wax xam nga gis nga bi muy jógee euh, baar yi ba ko ni ko sëriñ Mouhamadou Lam Diop Dagana nettalee mhm. im si laa tax sa dara demal waaye bu lagal bu ragal lor mhm. waaye itam teewul lu jiitu loolu avant maa qablu min azal ay fii azal avant dara di am aalamul arwaax nga xam ne boobu aalamul ajsaad nga xam ne dañuy wax ne comme wàllu spirituel rek moo am nga xam ne ruux yi rek la suñ borom sax waaye teewut suñ borom teel naa préparé jëmmi xaadima rasul ngir mu taxawee toolub lislaam ndax kon contexte bi ñu toll ci jamono ci jamono boobu mooy jamono colonialiste yi xëy na membre royaume yi buur yi dañ fee nekkoon mu ne raama rasulillahi min ilahi mm. kaw nii xadimahu wa abdullahi mm-hmm. kooku nag ak càkku tiif la mm-hmm. maanaam dafa dox ci ndigal mm-hmm. ndigal nag ku ci dox doo ragal doo tiit lu mu mën a doon damay wax ne tubaab bi dafa rëy bët gis nga ñoom ñoo gën a xam ne ndakaaru lu mu yàgg-yàgg mooy ne capital parce que Ndakaaru fi mu placé la dafa garaaw xamoon nañ loolu moo tax seeni pexe réyoon na lool mais pexe mi pexe mi Japon nañ ne ndar gi sëñ Abdou Lahad sek wax buñu fa agge bu sëriñ bi esekee ci seen pexé manam li ñu fexe bu fekente ni dafa dem ba nax say menen pexé mi ñu ko lalalon dakaro fa lañu jappé won ni mom moom touba mom fa la bakanam di dess Baye Cheikh Fall lay wax euh bu jëkkoon touba bi buñ la masaana fi xel nga dañ lay ak sam so deugéré bop ñu bolé la ak sam so deugéré bop ñu bolé la ak say mbokk soo dëgëree bopp ñu lem say kéet kenn dootu la dégg sëñ Tuubaa yegg nañu ko moom fii léegi nag sëriñ bi aaya bi nga xam ne moom la sëriñ Abdou Lahad Seck wax pexe mi ñoom ñu ngi ko nase ñu ngi ko nase ndar mooy li ñu fexaloon yoonu bi alayhi salaam benn ñu rey ko mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko waaye ci façon yi sax amoon na ak wuute ndax gis nga makka yonent bi alayhi salaam génne gi mooy dañuy fexe rek mu génn màkka abal leen ndax mu ngi leen di déranger waaye nag fii bu njëkkoon ñoom tëj gi ñu daan tëj boo demee ci booy topp histoire senegal ba ci xeexu ngol-ngol mhm. bëri na ci ñu koy nettali di wax ne bu njëkkoon mm, tubaab bi bu la masaana jàpp tëj gi maanaam du comme di tëj la ci benn prison yi déedéet waaye dafa lay wutal barab boo xam ne mhm. dafay waajal ay ponkal ñu jàpp la takk sa yaram wi ba sa deret yi dara dootul dox mhm. doo fa yàgg ab diir rek nga faatu ñoom loolu lañ tuddee woon tëj te sëñ Tuubaa xam na lii mhm. waaye teewut li ma ci bëgg a wax mooy Mbàkke Baari la déggee woon xibaar bii mhm. ci li koy noonam naral bu demee fee ca Ndar mhm. xam nga nas bi mu ngi jaare ci euh, Leclerc mi Leclerc mi nga xam ne moom moo nekkoon goro góornóoru Ndar bi di Merle euh, bi muy waaji néegi Mbàkke Baari la ko suñ borom xamal ne ko wa is yamkuru bika lazina kafaru liyusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka waaye nag wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayru makirin gis nga loolu sëñ Moustapha kaddug asamaan moo wàcc waqanteeg moom ci lameñu alquran sëñ Touba keroog la ko xam boo demee ci Majmuu Nuurayni bi sëriñ Abdul Ahad Mbàkke mool sëñ Touba moom moo ngi ko cay nettali boppam noonu la ko ca nettalee ne ci néegi Mbàkke Baari la suñ borom li ñuy nar ci man mu am mooy li ma la waxoon ne ku dañ déy sàkku nañ ci moom mu liggéey loon bi alayhi salaam léegi nag boo gisee bu ñu dawalee suñuy kàddu ci gàttal rek ñëw gi ci ndakaaru tartar yooyu suñu Abdou Lahad Seck wax ak mettit wi da ngay gis ne tey fi ndakaaru toll tey tey baykat yi suñu bayee ba pare bu njëkkoon am na ci ñun daanañ toog sax waaye léegi da ngay gis ko bay yàkkamti sax da ñëw ndakaar lu tax mooy dafay am lu mu fii foraatoo mm-hmm. mais xiiwal googu nga xam ne sëriñ bi jaar na fi ci fanaan mi mu fanaanoon fii ci ndakaaru xéewal googu la maanaam suñ boroom suy fay day xool nattu yi ni mu toll bu indee pay gi xajut ci jën jëm da koy sotti ci ay jëm léegi nag nga gis ne sëriñ bi bi mu jaaree ndakaaru ci njàngat liñ ciy def rek li ci gën a yéeme bokk na ci fit wi mu am ba tànkam bi fekkiwaat beneen bi ci ni ngeen ko waxe waaye néeg bi ni nga xam ne noonu lañ ko defare woon mhm. surface bi nga xam ne moom lañ ci defoon nga xam ne tàngoor wu fi nekkoon may faral di wax ne bu fekkan da ngaa jël am picc teg pool yi nga xam ne ñi ñi nga xam ne dañuy beñe teg diw gi ba mu ba mu sens nga teg ci picc mi xam nga du jikki-jikki ñor waaye ñoom tubaab bi defar nañu euh, néeg bi ci tàngoor wu mel noonu wala wu ko raw woo xam ne bu ñu ko ci dugalee lépp lu mu mën a doon bu dul jëmi sëriñ bi loolee ci sens day ñor sëñ Tuubaa dund na fi tàngoor woowu fi mu toll rabu gi sëñ Musaa Ka wax na ko waaye teew te teewut sëñ Abdou Lahad Seck ni mu ko waxee fekk na sëñ Tuubaa laq na mbooleem garaatigaa yu baax yi loolu kaanam mi di Cheikh Musaa Ka mu ngi koy wax mu ngi naan ko maqaamaati junne deeki booti tay foor ci sa garaaw nga ko laqoon te tax ti laa foor waaye tax sëñ Tuubaa xool bàyyi loolu sëñ Tuubaa bëtam dafa sori mom waxtu wu nekk himma aliya ji muy jëfandikoo mhm. bi nga xamne ne ko ci moy xersu ci liggéeyal yon bi alayhi salaatu wasallam mhm. xir lol mhm. lolé nak dafa dafa tax maanaam ko googee mu tudon tawfiq jojé ak la mu bëggoon weenu ngëm yi mu amon muy wénu l'islam nampal ko ci ay talibem ñu diko namp di fer diko nampar ci ñeneen tay ji wén wowe mom la ne ciow wa ñaari guddi deug la ñu namp ko ba tay ji talatu ñoo tok lu tax mooy tawféex joo xam ne bu ñu ko defee rek Sénégal dina ko am sëñ Moustapha ku fi gën dangaa ngaa màggal euh, wormaali suñu borom bi ku fi gën a yées dangaa ngaa màggal safaanu wormaali suñu borom ci misaal tey Makka tey bu ñu leen di tudd boo ne yónni bi alayhi salaam ne Kaaba ga lu fa des très bien léegi nag Makka Kaaba ga dafa nekk dafa bokk ci xoromaatullaahi mmh. te dafa wax zalika wa man yuaddim xurumatullahi dégg nga ko kon dafa bokk ci xorum bi waaye ba ca topp mooy jeexintal yoon bi alayhi salaam nekk gi mu fa nekkoon tax na nit ñi bàyyee xel loole moo tax ñu fa gën gën tey beneen bi ci topp mooy ñi gën a yées tey ñooy ñi nga xam ne dañuy xool sens contraire u l'islam ñu di ko màggal mooy li suñ borom bañ ci misaal rek bu am foo amoon yi nga xam ne lislaam bëgg ko tey ñañ fa gën a favoriser mooy ñi ko gën a jox gëdd gën koo jox itte loolee nag fi mu toll nii tey li nga xam ne mooy bésub ñaari guddi ndakaaru nga xam ne mm-hmm. histoire la boo xam ne Serigne Touba moo ko bindal boppam mm-hmm. ni mu binde xarajtu yow ma sabti saamin asar mm-hmm. noonu la bindale boppam ci bés bi nga xam ne fi la fanaan fii nga xam ne baabul awal فيما جرى في سنة الأولى وقع لي في دكارو وقع لي في ليلة الجمعة في دكارو التي ابتدأت فيها ما لا أفارقه من المنافع مهم بأذكار من أنفع الأذكار إلى آخره waye mom moko bindal bopam lima gëna yëm ci bo العطوفي jessaw sa qur'an atufi bim ci لما li histoire خلرك koo xam ne nekk na ci ay tartal li sëñ Abdou Lahad Seck ni mu ko laltaay tiis woowu ak mettit woowu nga dem ba ànd ak sam xel ba mën a toog wëlbatiku net li waatal sa bopp kooku mooy kan sañ Abdou may ma tuuti foofu daam lu may leeral maanaam liggéey bi bi mu tàmbalee néegi Mbàkke Bari tiis yeeg mettit yi bi mu ñëwee ba Ndar mën mm-hmm. sëñ Tuubaa waxut ne mooy sama tàmbalikaayu liggéey mm-hmm. waaye dafa wax ne fanaan ñu ma fanaan ñaari guddi yu ndakaaru mooy sama tàmbalikaay liggéey maanaam tey bu doon laxasaay gu nuy takkaayoo mm. ngir jëm ci ndigal yoon bi alayhi salaam mooy laxasaay nga xam ne yor na ko kon gàcce ngalaama waa ñaari guddi yu ndakaaru tubaarkalla <laughs> jërëjëf effectivement parce que boo xoolee ndar mm-hmm. euh, dañ ko faawoo rek mm-hmm. mu wuy ji conséquences yi jeewal la am <coughs> waaye bi ndakaaru la effectivement parce que ndar mm-hmm. dara amu fa ya fa am noonu ay ay ay kii la rek waaye daanaka li gën a tar te gën a kii fii la am waaye nag comme dañoo wax ni yan ban yenoon xutba ya ak labdaay te attanuñ ko moo ko faw raw gaaya dëngañ di wéy te tawatul balaaya sóoratul axwaani la la am ci aaya <laughs> loola lu tax mu wax loolu mooy keroog bi ñu koy wanee yan bi te yonent bi wax ko ni ko li nga bëgg muy xutbaan yéeg li nga bëgg lépp mën nga koo am ñu taxañal la li nga bëgg nga bokk ci waa ahlul badar mm-hmm. wax ko li mu bëgg lépp dako ko eh, ndax daf ko ni dafa am yu ne ci bir yo xam ne damay bañ nga dem ba ci bir mm-hmm. li da don gaay yu bax yi dal mm-hmm. nga salit mm-hmm. wala nga raf wala nga def nangam nangam nangam nangam seigne touba niko <laughs> li gën a tuuti ci li nit di def ci daw moy raf te raf ku ne xamna ni nit bu jëlon baramam <laughs> jëme ko ci sa bët nii <laughs> bu la nexé sax ma nga concentré woni baña baña daw waye nak bu jëm si ci sa beut man nga raf raf jojo la wax ni sax du ko def waxantuma ak di def di def leneen lu ñuro lu daw koku nak dafa bokku ak nit ñi da bokku ak nit ñi mhm. waye nak ci walu nit lañ mëna waxtani pour nit nit ñi xam ni mhm. nit bu amé ngëm-ngëm am jom mhm. am tawhid du bokku kiko am faaw yalla da koy euh kon seigne Mahmadan lan ngay tek ci li nga xam ne moom la seigne khadim jërëjëf jeuf seigne mustapha xamna comme ni ko rek jangat yi ñu def day melni fofu nga duggé sax bokku na ci jangat biñ ci mën mën a njëkk a def. Mm-hmm. muy yitte ju ci sëriñ bi am. loolu moom murid bu nekk da ko war a jàng ci sëriñ bi. yitte ju mm-hmm. ndax ñu ne la lii maanaam ngay ut. Mm-hmm. nañ la ko taxañal mu mel ni sa bët dafa jéggi lu dem fa sori. kon murid yi war nañoo jàng loolu ci sëriñ bi. ci ne. xëy na yoonu yàlla suñ borom mii maye du fi jóg mukk kon lu waaye sàkku ci suñ borom rek mënees na koo am dëgg la kon yitte ju kawe jooju moo koy maanaam moo koy maye kon sëriñ bi am na yitte ju kawe joo xam ne am na ko waaye yitte ju kawe boo am boo ko amee ba noppi dégmal yoon day mel ni yoon wi foo mu am ay obstacle ay natt yoo xam ne dañ la koy teg natt nag bu ñu la ko tegee faw nga muuñ ko mhm. ana tey jii sëriñ bi lan la ko muuñee xëy bo delo delloo ji ci madlabul fawzeyni alhamdulilahi alkarim sil minan al ishtiqal bi furud wa sunna ñuy wax na tey ji bo delo ci furud gogu mën nga ko delo ci suñ borom diggante yàlla suñ borom ak yonent bi bo delo ci yàlla suñ borom tey ji day melni alquran alxuraan la waxanteeg nit ñi sëriñ bi jël alquran def ko muy ngannaay nga xamne nattu yi fu mu ci tollu rek jëfandikoo ak aaya deug la damay jàpp ne xeyna biñ ko tabalé ci néeg bi. Mhm. métti woowu dal ko ci. Mhm. xëy na bu xalaatee yaa naari kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima. Mhm. suñ borom mën na koo selal. xëy na tey jii ci wàllu doomu aadama. insaaniya bi mu tegee tànk bi yëg nit métti. waaye bu delloo suñu borom day mel ni métti bi day seet. kon loolu lañ ciy jàngee mooy. ab jullit lenn moo war a doon gànnaayam muy alxuraanul karim. nga xam ne tey jii fépp foo toll rek. day mel ni boo xoolee ci alxuraan rek ñi suñ borom rafaatal ay may am na foo xam ne tolloon nañ fa te bañ fa tollee suñ borom am na nu mu leen ci génnee kon day mel ni sëriñ bi loolu mu wax ci yaa jumlatan ne bokk na ci laayal alxuraan yi nga xam ne da koo jëloon def ko muy ngànnaayam mooy fu mu tellu ji nattu bi rek am na aaya boo xam ne dina dëppook moom bu ci xelam delloo rek day mel ni muuñ gi da koy da koy da koy yomb kon ab jullit dafa war a ngànnaay teg ci ngànnaayu hadis yonent bi nga xam ne bëri na loo xam ne leeral na ko ci fu mu toll ci maanaam dox bi rek dina am hadis hadis boo xam ne bu ko jëfandikoo rek day seral mbir mi ci ci ci lu wér leneen li ñu ci mën a jàngatee mooy li ngeen wax euh, jom bi waaye jom ji mën nañ cee yokk gore moom léeg-léeg bay di ma xaw ci juum ci boo koy wax waaye day mel ni am na xasida gu muy wax naan billaahi faraxtu eh, faraxtu nasaara ji eewal mm-hmm. mm-hmm. bu waatee ne tàqali ko nga nasaraan yi jeewal mm-hmm. waaw léegi <laughs> kon kon bu ko neexoon xanaa bu ko neexoon mu bañ a dem waaw bu ko neexoon mu bañ a dem <laughs> neexoon mu bañ a dem kon day mel ni sax sëñ Moussa Ka wéy na loolu waaye gore gi gore gi mooy xëy bu toogoon nasaraan bi mën naa am fu ko jamee jàpp ne xëy na dafa démissionné wala nàngam ak nàngam waaye xoolal nee na jeewal laa tàqaloog nasaraan bi. kon tukki bi na ñan la àndaloon. Mm, mm-hmm. kon ba muy dem ana kon ñan la àndaloon. Mm-hmm. kon gore googu mu gore. ci tey jii jël na ab engagement engagement boobu foog mu mottali ko. Mm-hmm. mooy am na ci tey jii loo xam ne da koo tegu muy ay nattu. nattu yooyu foog mu dégg ko ba mu jeex. mu dellu si. maanaam ñit ñi ñit ñi ñit ñi jëfandikoo xee xeewal gi. kon <coughs> jàngat yooyu. lu mat a bàyyi xel la. ci mbirum sëriñ bi mhm, mhm. buñ delloo ci ni ko gaa yi waxee mhm. ci sabab bi ko génne bokk na ci tey jii sëñ bi day nit koo xam ne dafa am idéologie mooy gëm-gëm maanaam loolu dafa baax ci doomu aadama mooy yow nga am ay principe yoo xam ne ci ngay teg sa tànk principe yooyu sëriñ bi yoroon bokk na ci li tax tubaab bi tax maanaam tubaab bi mënu ko woon a rafloo bokk na ci principe yooyu sëriñ bi lu dul yàlla mhm. yóbbu ko yaakaaram lu dul mhm. maanaam yàlla it munu koo maanaam tax a tax a tiit mhm. ni mu ko waxee ne yaakaaruma ku dul yàlla waaye ragaluma it ku dul yàlla te it day mel ni philosophie boobu wala idéologie boobu mu amoon principe boobu moom la tàbbaloon ci mag ñi xam nga bu ñuy nettali sëñ Moussa Ka ci wàllu tentañoor tentañoor bi muy oo mag ñi naan leen tey dinaa leen tàqaleeg ngeen bàyyi sëñ Baba baa ma rendi di feeñal ay damm waaw xoolal li ko dangay ngay kàcc mhm. xam nga bu tiim buur ci jamono jooju mhm. naan ko da ngay kàcc munoo ñoo teeree dem mhm. ñoo ñu kon fit am nañ ko fit boobu fu ñu ko jëlee nag weesuwut ci sëriñ bi dëgg mooy kon bëriwaat na tey jii tukki bii lees mën ci jàng ci ay jikko yoo xam ne képp koo xam ne jóg nga am jubluwaay boo xam ne da nga am te jubluwaay murid nag sëñ bi ci boppam moo ko leeral li mu ko waxee ci masaali murid benn jubluwaay la am muy ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla googu nag lépp lu la koy may tey ji boo demee ci sëriñ bi ci doxal ni ko waxee léegi mhm. maanaam bu jëlee sëriñ bi rek ci mhm. wàllu wàllu wàllu doomu aadama mhm. te bañ a jël maanaam wàllu may yi waaye ci wàllu doomu aadama rek ci ni mu doon doxee rek képp ku jàng maanaam dundam rek mën nga cee jëlee ay maanaam jàngat yoo xam ne boo ko jëfandikoo rek mhm. maanaam lu bëree bëri boo ko yittewoo rek mhm. suñ borom mën na la koo defal kon xam naa dañuy taxawlu foofu rek barkàlla suñ mahamadan euh, mhm. bëgg nañ lool su ko defee xam naa sëñ daam euh, na nga préparé ñu am na benn vidéo boo xam ne tamit mel ne ni kuréel gi demoon nañ ci ci Cheikh mun Mountakha seeti ko bu sëñ njërim daa daanelee kàddoom bala ñoo dellusiwaat ci sëñ Abdou Lahad ñu mën a xool vidéo boobu euh, kon sëñ Yérim yaakaar naa dégg li nga xam ni euh, gaa yi wax nañ ko euh, yow it nga war a wax ci wàllu mm-hmm. li nga xam ni mooy karaamay sëriñ bi mooy trésor am mooy mm-hmm. léppam mooy xasaayitam yi mm-hmm. ak woote beeg ak façon bi nga ko bëgg a defee rek ñu bàyyi la jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf sëñ Mamadou Mbaye sëñ Khadim jërëjëf sëñ Ablaat macha allah defe naa li ngeen leeral moom lu am solo la Euh, xam naa am na tuuti rek luñ ci dolli ci jàngat. Mm-hmm. bu ko defee doog a jàll. Mm-hmm. jàngat bi it mooy euh, sëñ Mouhamadou li mu mujj daane léegi muy sëriñ bi maanaam ni ko yàlla taw féexale mm-hmm. ci liggéeyam bi muy pas-pas bi mu tudd. ak yitte. yitte nag ak pas-pas day ñaar yoo xam ne. maanaam rawatina lépp loo xam ne lu jëm ci diine lislaam la. maanaam moo loolu rek moo mën a àggale nit ci suñu borom. mag ñi sax bañ nañ ko ba dañuy wax saa su ne yitte mooy yett bunt dëgg la mm-hmm. maanaam yitte boo ko joxee mbir mm-hmm. daf lay ubbil bunt si dëgg la sëñ Tuubaa looloo ko dal pas-pas it day def lépp loo ko fase mm-hmm. fas yéene caa jëm bu yàlla dimbalee rek mën ngaa egg ca la nga jëm am na am na am na ku may jox misaal saa su ci pas-pas muy woon Dagana nga xam nga dañuy wax ne xëy na kokki nguy bisub talaata namm ci géej gi bañ na xatmaat ba weer wa dellu see ci déwén sa lay doog a siyaare Bàmba maa yomb waaye Moussa Ka dana ngir pas-pas ba mhm. maanaam bu amul woon pas-pas mhm. loolu du ko mën ndax xam ngeen ne dafa dafa dem Casamance liggéey ba am paasu Mali mhm. dem Mali liggéey ba am paasu Côte d'Ivoire dem Côte d'Ivoire di fa liggéey nga xam ne fu ci ne mën na faa def weer war na faa def ñetti weer nga xam ne day liggéey ba am paas doo ko jàll ci beneen dëkk ba keneen muy fekk Sëriñ Bàmba dem Kaolack maanaam Sëriñ Moussa Ka ne ngir pas-pas ba kon pas-pas boobu ngeen tudd ci Sëriñ Tuubaa maanaam loolu moo ko may loolu moo am gis ngeen it euh, fi mu teg suñu borom ci ni ngeen ko waxee ak jaar-jaar yi mu jaar yëpp waaye bi mu dellu see it ba tubaab yi ne ko nag fi mu ne fi mu ne nag nañ ci yow léegi nag nooy def mm-hmm. mu wax ba itam boobu afapi ane ahda turan ne jéggal na bépp noonu bu ko mos a fexeel mm-hmm. tubaab yi jaaxle ci waxam jooju ne ko waaye yow mën a demee ñun at yi ñu la téye lépp di la fexeel def nii mu ne leen yàlla mi leen mayoon kàttan may leen yitte ci ngeen nekkoon ci man mm-hmm. moo ma musal ci yéen maanaam xoolal kennal suñu borom gopp nga xam ne am na ci buur yi ku ñuy wax ne ba muy dem ci sëñ bu mag bi. di ñaan lu ngir eh, xeex bu muy dem. sëriñ bi ne ko toogal ah ñu aar la aar sa njaboot. mu ne dañ ne ma yow yow bu mënatumaa dellu ginnaaw. ba mu demee xeex ca xeex ba ñu ñu gañe ko fa. nit ñi bi ñu dellu see sëñ bi ne leen nu mu demee ñu ne ko daanu na de mu ne lu mu doon wax ñu ne bu reyaan de day rey daal di ne ko joor daal di wax bàkkam waxu bàkkam. Mm-hmm. sëñ bi ne bu doon wax allahu akbar du dee mukk deqal. kon leer na leen ne Serigne Touba. yoonam wi li mu ànd ak Touba bi yépp kennal gu mu kennal suñu borom. ak bëgg yonent bi moo ko may ndam ci lii mu doon wut. loola rek laa ci doon dolli ci seen i kàddu yu rafet. te xam ne kon Serigne bi moom. Mhm. Euh, képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom mhm. am na am na foo war a tegu. maanaam loola nag moo war a liggéey bii yàlla dogal fayee ko murit yi. Mhm. bi ñu toogee ba jamono jii ñu ne nañ fàttaliku bis boobu. maanaam bis yooyee ku ne xam ne ne. bu doon ca yooyee jamono la wala ndam amu ci woon. Hmm. kenn du ko fàttaliku. bu doon leneen a ci am kenn du ñeme a toog ndakaaru naan nañu fàttaliku ñaari guddi yee nangam. Hmm. waaye xam ne ndam lañ ci amal ndamal lislaam lu rëy. Hmm. moo tax sëñ Tuubaa it xéewalal ay taalibe ñu am yéene nañ ko màggal. donc kon ndam la. macha allah màggal moom. lu fës la te ndam la. maanaam lu loo gis ñu di ko nëbb rek xamal ne. du lu ñu war a màggal. kon nag loolu liggéey boo xam ne buñ ko yëkkatee. tëral tëralin woo xam ne moom la ñu am yéene defe ko mhm. muy muy dara waru cee génn alxuraan mhm. ak xasaayit mhm. ndax sëriñ Touba moom defe naa dundam gépp ci loolu rek la nekkoon damay wax saa su ne mbokk taalibe yi ne leen jumaa ji moom saa yoo demee bokk kook yeneen jullit njabootu Serigne Touba gi it boo fa demee di siyaare mën nga faa fekk koo xam ne bokk leen jépp jébbaluwut sax mu gën laa jege sëriñ bi waaye xasaayit yi moom moom ku sa xol sëñ Tuubaa newut mhm. jàpp naa ne boo ko dee yërit yër ba du sori ah, kon nag bis boobu mhm. dafa mel ni liñ ci liñ ci liñ ci liñ ci jiital mooy alxuraan mhm. lañ ca toftalit mooy xasaay ni ko ni ko suñu kilifa yu tedd yi diglee Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla doon lay yàggal kon xam naa moo tax may profitoo rek xëy na balaa kàddu gee del si xamal murit yépp ne bisub sëñ Tuubaa la yàllaa ko jaarale nag ci ay murit ñu nekk ca di ko taxawu waaye mën naa ne képp ku koo xam ne sa yitte tey bu ne woon génn leen réew mi nga daw wuti Touba bis boobu sa bis la. dëgg la kon nañu xam ne yitte ji ñu ko war a jox waruñu xaar sax ba bis ba ñu doog koo tàmbali. bu ñu nee jàpp nañ bis bi rek. képp koo xam ne yàlla man loo na la alxuraan. maanaam wéetal nekk ca. boo ko mënalut sa bopp wutal ñu la ko defal. jagleel ko bis boobu. képp koo xam ne it yàlla dimbali na la ci xasida yi maanaam noon yi nga koy defee bu bis ba ñëwee nag nañ ko tërale ne noon lañ koy doxale xëy na bu ñu ñëwaatee nañ ko leeral bu boobaa it ñu leeral ñëpp ne nii lañ koy doxale kenn ku ne waajal ko bu baax a baax a baax mm-hmm. ñuy amaat mbégte ci mm-hmm. suñu mbokk yi daanaka seeni wax moom teg ci dara sax yombut asalaamaaleykum wa rahmatulah bañ del ñu leeral liggéey bi incha allah jërëjëf euh, sëñ Njërim xam naa buñ delsee sax euh, dinañ joxe bis yi mm-hmm. ñoo xam ne ñaari guddi Ndakaaru bis la ak bis ndax ku ne xam ne ne mois de septembre moom mooy weer yu nga xam ne ñett yee ci daje muy muy bureau bureau gouverneur mm-hmm. julli gi fa sëñ julli mm-hmm. ñetti ñaari guddi ndakaaru yi ak julli ci géej gi mm-hmm. ndax dafa jóge ci ndax bi nga ko waxee sànq ni nga ko waxee sànq rek nafaalu nafaali xëyri laawu xablu fi ndari nafaalu xëyri laawu fi ndakaaru allamani rahmaanu fi safari kon day yoon woo xamante ni lu ci ne moo tuddal kon septembre dafay loo xam ni ñett yi ci daje day ñett yoo xam ni wax kon hmm. sañ dam, ñu bàyyi rek nga indil ñu vidéo dem siyaare ji Cheikh Mouhamadul muntaha ak kàddu yi mu ci jotal ñu dellusiwaat ci plateau waaw gën leen a dëgëral seen seen seen seen seen taxawaay rek taxawaay bi weesu woon noonu ñi ngeen ñi euh, ñi ngeen ko war a àndal ñi ngeen ko war a àndal yëpp ngeen ngeen ngeen ngeen ko buntu buñ ko ànd buñ ko mën mu yitt ji rek bokk taal bi yëg ko xam ko ngeen ci euh, ñi ngeen ñi ngeen ko bokkal ñëpp ngeen ngeen woo ngeen woo woo ñëpp rek. am ginnaaw am nga ñoo xam ne am ñoo xam ne yéen ñi nga xam ne nag yéen a ko yéen a ko yéen a ko taxawee ba fii na xam xam nas bi rek da ngeen ko xam da ngeen ko xam da ngeen ko war a nase ak da ngeen ko war a doxale yéen ak taal bi yëpp ko bokk eh, ci foofu kon ñi ngeen ko war a yëgal moo tax tàmbale ko ci kilifa yi eh. ginnaaw yéen yéen eh, yitte ji moom dëgër na ci yéen Euh, te yéen ak taal bi yëpp ko bokk loolu euh, dafay dafa laaj rek waxtaanee ko kilifa yi ñi nga xam ne ñëpp yéen a ko yéen yéen ak ñëpp ko bokk daal kilifa ya nga xam ne ñoo ne ci euh, tàmbali ko yi mbakki fay ma nga xam ne moo fa yoroon kii ba euh, wax ñi nga kilifa yi daal ñun ñëpp taalibe yi kilifa yi taalibe yi ñi nga xam ne ñoo yore taxawaayu taalibe gi te am def ci te te ak taalibe di seen yitte liggéey bi di seen yitte yooyu ñëpp da ngeen leen koy wax. wax leen ko ni ngeen ko bëgg luñ ci war a mën leen moo ko loolu mi ngi si noonu rek fu ngeen bëgg màgg fa rek. amul amul amul yenn yenn jamono ju gën a tiis ju gën a diis jooju ci ci sëñ kon liggéey bu ko kooku nag kooku ko. wax dëgg yàlla moom ñëpp ko bokk. ak taalibe yëpp ko bokk. barakallahu amul genn genn jublu genn genn yitte ju ju gën seen ju ju ju ju ju ëpp doole seen seen ndax bis bis yooyu moom bis ñetti fan yi Dakar bi kon amul dara amul benn jamono boo xam ne mën naa mën naa. Euh, jërëjëf sëñ daam loolu di lu am solo euh, yaakaar naa ni euh, sëñ ma daawur ñaan noo koy nuyu moom tamit di ko siyaare mi ngi ci ma waaye mi ngi topp jotaay bi ñu koy wax booy ger ndar xanaa nit ñi bari xam nañ ko mbër <laughs> waaye day bi sëñ boo xam ni Eh, bërki démb safar gi am yarax seigne mour Sis Dieye jàngatu xasaayit don ko def seen ñaar yaay bokku ndey ak bay mu ñewon ci ba ñewé daf mel ni yow ak seigne Mamour mbay ak seigne am ñene fi Touba TV rek lay seetaan bok ngeen ñi tax ma gëna bëgg seigne Touba waaw wax ni ni ma ngi top jotay bi ñoñu loolu ñi def ku dib murit rek war na la war nga ca tabbi war nga ca war nga ca and ak ñom kon yaakar na ni koy nuyu ko siyar baax ak Ndar Euh, ngir njëkkanteek waxtu wi xam naa ni daanaka li ñu dese bariwul mm-hmm. si ña blaat mm-hmm. foofu nga daaneeloon rek. Mm-hmm. ngay xam naa dolli daal ci tënk rek. Euh, ñu ñëw ci sëñ Xaadim ak sëñ Mahmadan ngir mën a njëkkanteeg waxtu wi. bu ko defee wax wax wax tamit lu jëm ci wàllu. organisation bi ak nan ngeen ko war a ak bis yi. ndax euh, ñu xam bis ban ak ban ban la. waaw jasakumulaa waaw Cheikh Moustapha mm-hmm. euh, jërëjëf comme foofu ñu tënke woon mm-hmm. xam naa doon nañu wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. euh, yàlla da koo digaloon mu gàddaay sëriñ beet ndigal la ci am dëgg la ma doon euh, bayit bi ma doon wax huwa la si xaajali lil madina bi am amri rabbihi fasaana diina kon yonente bi dañ koo digal waaye doonul dawul dawul waaye dañ ko digal day mel ni nag kiy dégg wala muy muy muy wax ni yonent bi daa gàddaay day mel ni yonent bi daa daa <laughs> ragal daw waaye nag ndigal la am soo dem dañ ko digal kon ndigal loolu rek moom la Seexul Xadiim am uh, imsi laa tax sa daral mhm. uh, comme noonu ko sëriñ bi waxee mhm. kon loolu sëriñ bi da cee roy yonent bi uh, mhm. ci wàll yëpp foofu ñu taxawe woon ci ci néeg bi sëriñ bi bi mu agsee ci néeg bi ak pas-pas bu rëy bi mu amee waye ak jébbal mbirum yep suñ borom umuri lahu fawwattu wal qalbu tayyibun qaribun ladal a'da'i wa huwa basir sëriñ bi dafa wax ne sama mbir yep la jébbal sun borom subhanahu wa taala waye lam ma jural moy qalbun tayyibun kon qalbu tay dundugu tay gu andak sago kon yaakaar naa ne jël lépp jébbal ko sa borom lolou lu ama ama am solo la comme niko baye bàyyi waxe serigne bi kan ko kan la don kan la don bakka Euh, mu ne ñama daan bàkk la doon bàkk ba daanu mhm. mu ne bu doon wax allahu akbar du kon sëñ bi mhm. noonu la jële woon léppam rek jébbal suñu borom subhanahu wa taala mhm. loolu moo tax moom bi xew-xew bi amee rek daa delluwaat suñu borom subhanahu wa taala yaa rabbi in aataytani fa sukuru wa in manaata faridan wa sabru suñu borom yow boo ma joxee ma sant waaye boo ma xañeet damay gërëm gërëm mooy damay damay li nga def li nga def dafa maa neex day muñ ba pare dal di dal sant gërëm. kon ki gërëm mooy lii daf koo neex. am na koo xamante ni dafa muñ waaye dafa ñàkk pexe. waaye sëriñ bi nag dafa wax ni moom arrida lay def mooy gërëm. kon loolu moo tax ngërëm loola tamit feeñ na fa ndax nee na daa gërëm yàlla. sant yàlla muñ muñ gu sell sell sell dellu ci suñu borom subhaanahu wa taala. tudd sunu boroom waaye jaamu fa jaamu yàlla gi gën a kawe muy julli. julli moo gën a kawe mu doonoon aadaam. mu jàng fa mu julli fa ñaari rakkaa yu yu gudd lool mm-hmm. yoo xamante ni ku amul maanaam benn benn benn benn taxawaay bi sax mm-hmm. bu dul bu dul te barab ba mm-hmm. pour nga julli ga lu jafe la nga xam ne bul na tegoon fee nga julli julli goo xamante ni da ngay julli jàng faatiha ak bàqar ba mu jeex yaakaar naa loolu jafe-jafe la ci ñu bëree bëri waaye mu jàng fa euh, faatiha ak bàqara jangat fatih ak Ali Imran lolu moy dara dara daal dérangé ko mom sëñ bi moom yàlla rek mom la gis waye bi mu defé lolu taxul mu yem ca li sëriñ bàyyi bàyyi bàyyi jirim doon soññee da ca djublu muy salatu ala nabi euh djulli ci yent bi ay djulli yu bare bare kon day melni bis bi sax wuyuna bopam ndax comme sëñ bi néeg ba lam fa lam lam fa taxay moy taxawayu jàng alquran lam fa taxay moy djulli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam kon buñu wote bis bu melni woote ko ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jàng alquran te sëriñ bi waxoon ni moom alquran moo doon ànd doowam rafiqi kitaabullaahi wal mustafa nabi dafa wax wax tamit ni bu zuuri kitaabullaahi wal mustafa nabi alquran lay ji alquran moom lay góobit waaye alquran tamit mooy ànd doom moo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ak saxaaba yi kon loolu feeñ na ci néeg bi bu baax a baax waaye li ma wax ni karaama euh, euh, xew xew na fa mhm. mooy ak tawfiix tamit mooy feeñ ga nga xamante ni moom la fa rasulullahi feeñ te it loola teeloon na ko wax sax ndax yonente bi bu mu jógee mbàkki baari la ko feeñu woon ànd ak moom ci ndigalul suñu borom subhaanahu mhm. wa taala ànd naa ak moom ba bi muy bind xasidaam googu nga xamante ni mooy xasid ak asiru mahal abraari mhm. wax na ni ñoom dañoo jàpp ne ñoom laa àndal waaye ànduma ak ñoom yazunnuuna ni waqta ixtilaabi ladayhimu asiran lahum wal kullu sama yaxuuru ñoom dañoo gëlëm te ñoom tamit ñoom la saytaane jàpp fa yaara usaara li sayatini wal hawa kon ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom la saytaane prisonnier waaye man ci suñ borom rek lay delloo kon melowoo moom la def ba yenente bi feeñu ko fa waaye nee na sëñ Musaa Ka nee na dee ko fa lool def ko xam billaahi nee na keroog gis na fa sunu maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara soxna jaara ñaax na ko fa fàttali na ko fa comme ni ko mu safaa waxee ni ko na nga fàttali ko bu baax a baax bis bi nga gënee àdduna ci sama kanam ak sama teewaay nga fasanteeg yàlla kóllëre ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni di nga jaamu yàlla ci kow suuf jaamu yàlla goo xam ni mel na mbindeef mosu la koo jaamu <laughs> ak liggéeyal yonent bi liggéey boo xamante ni kenn mosu koo liggéeyal yonent bi ci kaw suuf mu ko kon nag الايفاء بالعقد واجب آه. متى الكل المطلع ممكن نقول قاصة العقد مع الله سبحانه وتعالى ومع أيوه. رسوله صلى الله عليه وسلم رأيتنا أن كل رواح من تني دنكو فصل تجي الله فصل تكو يونتي صلى الله عليه وسلم كون نقل نقل بولدب ت يونت آه، في في في في في وقت هذا هو أمي وان قاعد من سرير بيجنا نعدنا خبنا كم عن لدنيو دنيو خوما سنجمو يمي خوما صفنا جارو يمي وعي وقت أبلل Euh, donto tànk yaakaar naan lu yéeme la gisoon nañ ko ci Seydina Isa mhm. waaye sunu borom euh, ala kulli say inna la ala kulli say in xadir mhm. yàlla moom mën na lépp waaye diggante boobu mat na 43 ans mhm. ñeent fukki at ak ñett yoo xamante ne soxna Jaara fekk na ko foofee ci néeg ba waaye comme ni nga ko waxee sëriñ bi fu mu sax tolloo ci ay jafe-jafe rek lu lu nuru ay jafe-jafe soxna Jaara dina ko fekk foofa dalu koy ñaaxaat soññaat ko bu baax a baax xamal ko ni ko daa yenu yen bo xamanteni ci mom la sunu borom di yewina yéwénale aduna ak àllaaxira kon lolu motax bu dëppoon rek musiba musiba am kon fàttaliku gi lu ko mat comme seigne bi day melni ni da koy fàttaliku sax kon talib bi yëpp war nañu fàttaliku bis bu baax a baax a baax baax te gën cee delloo njukkal sëriñ bi mhm. ci ak bëggam mhm. jiw jiw jiwam wi nga xamante ne moom laa doon wax alquran ak mhm. euh, tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran ak xasida ak yi ci aju xam naa sëñ Xaadim dina wax wàllu ah, bis beeg yi ci aju ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëñ Abdoulaat xam naa sëñ Xaadim waxtu wi daanaka li ci des bariwul ah. euh, waaye ñu ngi koy sant li mu wax lu am solo la <coughs> waaye nag fi nga neewoon sànq ba tey am njàngat lay doon rek ci biir li mu doon wax te muy njàngat mu am solo te lépp dara génnul sëñ bi ndax doomu aadama yi yonent yi ci gën yàlla seetaan na ñu rey ab yonent yàlla seetaan na ñu xar ab yonent yàlla seetaan na lu nekk kon lu ñu teg nit mu faatu rek teg nañ ko sëñ Tuubaa boo gisee ñu di ko jiiñ lu ñu ko jiiñ rek mm-hmm. moo def lu tax ñu jiiñ ko ko mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. bu waxantee rek li ñu war a waxante <laughs> lu ñuy lu ne teg nañ ko nit mu faatu ñu teg ko ko. wax dëgg yàlla mu mu génn ca. te tukki bi. Mhm. mënoon naa bañ a dem ñun rek a taxoon mu dem. ñun rek. sañu saaka nee na dogoon ko nag dem gi. Mhm. wala nasaraanu. Mhm. te kon bi laay ñëpp dem niiraan. li li tee nga nasaraanu tee nga dem safara. loolu moo gën ci yow. loolu waroo ko yemaleek lenn. Ah, kon euh, yaakaar naa ni euh, euh, suñu xaadim. Euh, point bu am solo ci la sëñ Abdoulaye daane lan nga ci lan nga ci lan nga ci dolli. waaw liñ ci dolliwaat mm-hmm. euh, dafa am lu ñu ci frappé lool encore. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy soxna jaara taxawaay bi mu am. dëgg la passage maa ngi ziar baax soxna yi ñu que it euh, <coughs> sëriñ bi dafa wane lu yaatu. waaye soxna jaare itam. Mhm. waxtu wu nekk dooguma la sax ren boo gisee ñu ñu ni màggal gi. Mhm. bu benn jigéen ñëw sol sol ko góor. Mhm. xam loolu def nañ ko message mooy caay ñuy sol ak njaxase yooyu. yaay faal amul. jigéen soxna jaara la war a roy. góor bàyyi faal. yaay boobu ñu génnee. yaay faal amul. amul bàyyi faal moo am. bàyyi faal jigéen soxna jaara la war a roy loolu tamit nit ñi nañ ko xamaale bu baax a baax. <laughs> ne loolu ñu tere Touba. terewuñ ko nii rek sëñ bi dafa xam ne xel ni jigéen toujours nay roy jigéen mhm. góor di roy góor mhm. maa ngi jéglu lu baax waaw loolu da daf ci am solo sax mhm. ndax day tax itam jigéen ñi gën a xamaat ndax point bu am solo la doon na sax jataay war naa doon jataay boo xam ne sax spécial lay doon waaye day wanewaat itam ci màggal gi taxawaay bi nga xam ne soxna yi am nañ ko ci nga xam ne tey buñ nee góor yàlla yi boo xoolee soxna yi gis nga bi koy doora tambali euh gis nga avant contexte bi ñu nekk ni nga xamne ne taxna yu bari xaw a soppeeku am bis bo xamne <coughs> dañ ko doon euh, ki dara jale itam euh, di ci soxna jaara manam jigen ni di ci am di ci gëna gis seen bopp waye teew di lolé li alcorane di def rek ñaare mu sété ben affaire tout mu leer léeg itam mu xaw a bëmbastal ci biir lolé itam da fay ni ba légui mu ngi ci biir mm-hmm. waye soxna yi nañu wat bu baax ci soxna jaara ki mu yoron melokaan bu mel noonu nga nëbbal ko ay secret yëpp. ba pare di ko toppaat ci ci baatin di wax ak moom. loo itam itte la ci comme sëñ Mouhamadou Mbaye fi mu doon waxee. itte jooju soxna jaara amoon. soxna yëpp ñu ngi leen di woo. mbooleem daaira maam jaar yi. ñu xam ni bis bii. tey buñ nee góor yàlla yi ñoom bu ñu bu ñu taxaw di xoole nañu xam ne soxna jaara daa jàpp ci liggéey bi. Mm-hmm. ci zahir jàpp ci ci baatin ndax ci zahir daa bi secret ba. ba ba kenn xamul sëriñ bi ci dëgg-dëggi zaahir si ci yu bari waaye teewut baatin bi itam da koo fekk di ko soññaat kon mboolem daaira maam jaara yi moo xam bawal la moo xam euh, euh, fële la bayax maanaam tund jandeer nga dem ba kayaar nga dem ba mbuur tamba kolda pire mhm. fep ci réew mi ci senegal ba ci xata fi ci bir Dakar gi ñu nek tay mhm. mhm. mbollem daaira maam jaare soxna yëpp nañu gëna a defarwaat te waajaat te xam bis bobu kenn waru leen ci yobul bis yi kan, kan kan la bis ba ah, dimanche lam sam dem gaaw wala wala kan bis yi nak dimanche lay tambali inshallah allah dimanche bii di ñew bu ñu xëyee mën naan 8h heures dimanche ginnaaw suba ji dimanche ginaaw suba ji 8h ci la ñu commencé programme yi ñangum qasida mi ñangum alxuraan mi duruskat yi moo xam rajaskat yi ak ñi yëkkati mhm. ak itam danañ fa amal itam ay waxtaan yoo xam ne ñu ngi koy defee ci biir masaalikul jinaan biir masaalikul jinaan mhm. foofu lañ koy defee mhm. su ko defee mbooleem ñi nga xam ne nag dañoo aju ci biir liggéey bi nga xam ne fi mu toll ni message bi sëriñ bi waxoon ne yéen ak ñëpp ko bokk baamu ko lu baree bare ndax dañuy wax ne baamu dafay tax nit ki war a bàyyi xel kii baamu lan la ci jublu kon daf koo fonk mhm. yéen ak ñëpp a ko bokk ji ni mu ko baamoo mhm. tax na yendalatuñu fanaalatuñu maa ngi jégu sax dafa am sama benn xarit mu ne lu tax ñaari guddi ndakaaru mel ni daa nëbb woon mhm. ma ne ko parce que daf gis nga ñaari guddi ndakaaru mu ne ama ah, ne ko dafa doon loo xam ne tey boo ko xool da ngay mel ni liir boo xam ne dafa judd am ñu ko téye woon waaye nag dafa jotagut biis bi ñu ko war a génnee jéble ko ci benc bi tey nag euh, meñeef gi nga xam ne mooy masaalik di pay gi dafa bokk ci pay gi bokk na pay gi sëriñ bi moom mënee su koo napp daf cee bokk tey ñu indi ko foofu nit ñi ñëpp xam ko waaye ñu ngi woo ñëpp hmm. mboolem fépp foo xam ne nag hmm. jot nañ faa àgg hmm. ci dëkk yi ma fi lim bi yëpp ak fépp foo xam ne xëy na ñu ngi dégg ci di ko seetaan ci télé bi wala ñu koy dégg ci yeneen i média kenn ku ne na nga xam ne loolu moo di sab appel maanaam bi ñu la bi ñu la mooy message bi ñu la lancé daal ngir mën laa woo ci bés bi nga ñëw jàpp ci ndax tawféex la ak yokkute jërëjëf sëñ Xaadim sëñ Mouhamadan xam naa waxtu wi sax ni ngi may signalé dama jeex na waaye mënoo ñàkk am loo ci teg ak seen njëriñ pour ñu yëkkati jotaay bi. waa xëy na nga insister nag ci euh, programme bi ak euh, bisu euh, dimanche bi lu ciy am ak ak altine ji lu ci am. Euh, jërëjëf sëñ Moustapha mhm. xanaa tàmbali ñi ñu ko waxee woon rek mhm. ñi ñu fi àndal te ñu nekk ci jotaay bi waaw waaw maanaam di suñu magi taalibe mhm. ak suñu mbokk taalibe buñ ci lim ku mel ni sëriñ Mamadou Sène di kilifay jotaay bi sëriñ Jibril Ñing sëriñ Alaaji Seck sëriñ Cheikh Mbacke Seck ñu ngi ànd tamit ak sëriñ Ibrahima Ndiaye sëriñ Xaadim Xaadim Samb nga xam ne ñoom ñoo bokk ci commission culturelle sëriñ Kader Mbaye ma nga xam ne tey ji moo yor wàllu communication ak soxna Yëri di soxna Penda ak soxna Faale kon ñooñu lañu àndal ñu bokk ñun jotaay bi ñu ngi leen di nuyu. di leen siyaar bu baax. comme programme bi ni ñu ko waxee. tey jii le 19 la ak le 20. le 19 mooy dibeer bi. dibeer bi maanaam lépp masaalik lay amee. ci biir xoromu jumaa ji. ñu tàmbalee ko ci suba gi ci jàngum alxuraan. ñu koy jiitalee. boole ko njàngum xasida gi. ci wàllu durus. waaye nag prévoir nañ fa yëpp njàngum xasida ci wàllu rajas ak wàllu kuréel yu bari yoo xam ne tey ji jokkoon nañu ñoom ñu joxe seen accord war faa ñëw feeñal fa seen yéene programme bi noonu lañ koy organisé mhm. ni seer nañ fa it bu ko jotaay bi mayee ab waxtaan mhm. waxtaan bi nag thème bi ñu ci jàppoon mooy mhm. maanaam place bi nga xam ne ndaw yi am nañ ko ci ñàngaleem Serigne Touba ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne ndaw yi foog ñu jéem leen dimbale bañ mën a xam njàngaleem Serigne Touba waaye nag bu dee altine ji day mel ni dañuy delluwaat ca cosaan la Mm-hmm. kon bésub dimanche bi la ñuy defee Masalik mm-hmm. waaye altine bi lañuy dellu ca daara ja fële Sandaga mm-hmm. te ca déem fas yéene ko fay dundal ni ñu ko dundalee fii rek lépp lu fa xaj ci wàllu njàng alxuraan njàngum xasida wàllu yëkkati kuréel yi nga xam ne ñoom jotuñoo jàll ci dimanche bi te mu doon ñi nga xam ne dañoo jege mbooloo mi sax altine ñu feeñal ci seen yéene ñu dundal ñaari ñaari ñaari bés yëpp kon noonu lañ fas yéene tëralee programme bi dimanche bi amee Masalik altine ji maanaam Sandaga lay doon foofu ca ca ca déem waaw naa dañu bàyyi si njëriñ rek ma àggali ci des si wàllu woote waaw kon xam naa kàddu yi ci des yaa koy montali rek ci wàllu yëgle beeg woote bi waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha euh, xam naa ñu doole santaat rek mhm. euh, ndax liggéey bu toll nii tey mhm. jàpp naa ne dañoo waroon naan mhm. euh, ki fi nekkal borom Touba moo koy taxaw wala njobootu borom Touba ñoo koy taxaw ñun ñu war a dem wàlli dëgg ndax am na xeeti bis yoo xam ne moom murit yëpp dañoo war a xam ne bisu sëñ Tuuba la tudd nga fi léegi ñaari guddi Ndakaar yi tudd nga mhm. julli géej gi mhm. tudd nga 11 novembre mhm. tudd nga ñaari rakkay ndar yi dëgg la ak xeeti màggal yi Sëriñ Tuuba yi dëgg kon yooye moom benn murit warta toog naan woowuñu ma yëguma ko bokkuma ci ndax mbirum Sëñ Tuuba la dëgg la loola nag moo tax kon e, ginnaaw bi ñu xamee ne nag ñu ngi santaat bu baax ci yaatal gi ñu ko yaatal jëmee ko ci xasaayit ti Eh, ñu ngi ci profité di ñaanal sëñ Amsatu Mbàkke mu sëñ bi mi nga xam ne mhm. mooy suñu bunt ci suñu diggante ak mun Muntaxa ci xasaayit nga xam ne lépp luñ ciy yëngu rek mhm. ñoo moom ñoo koy ànd di ziar baax sëñ Aliou Diop xitma mi nga xam ne it mooy suñu jëwriñ mhm. nga xam ne liggéey bi bi ñu ko yëkkatee ñoom ànd nañ dem ba ci sëñ Aliou Diop xitma waxtaan ceeg moom moom it mu waxtaanaat ceeg man ñu am yéene ñëw nag ngir woo ci képp kuy yëngu ci xasaayit rawatina ñi féete ndakaaru ñëpp tey taxawal bisi xasaayit mm-hmm. maanaam bisub dibéer bi dañ koo jagleel xasaayit yi mm-hmm. jiital alxuraan ci kanam mm-hmm. heure xasaayit nag kuréel bu mu ci manti doon rek booy woote sa bisit alxuraan ngay jiital doo ci teg xasaayit kon nañu xam ne ña fay nekk di yëngu ci alxuraan ñu ngi leen ciy woo ña fay nekk di yëngu ci xasaayit ñu ngi leen woo maanaam ni mu ko waxee nag huit ci suba lay tàmbali euh, gënut nag ñu toog ba neuf heures midi di fa doog a ñu xam ne it barab bañ koy defee barabu jaamukaay yàlla la murit buy ñëw na nga yiw mel melokaan woo xam ne mi bi bëgg ab murit mel ni cib jataay noon nga war a mel maanaam xam ne du barab bu ñuy waxtaane du barab bu ñuy jële ay téléphone lu ne nga dugg ca nañu xam ne bureau bu jàng alxuraan la ak xasaayit ni ko sëñ Muntaxa bëgg te nag ñi yëngu ci xasaayit war nañoo santaat yàlla bu baax a baax santoon nañ ko sax waaye jamono yi ku gis sëñ Tuubaa mu ni mu mel ci xasaayit ak alxuraan yow ma ca don doon neb nebi te xamoo ci li nga newon ndax wóor naa wóorut mhm. defe naa sëñ Muntaxa na law yoon kon nañ ci góorgóorlu bu baax mhm. waajal ko xam ne dibéer bi mhm. bokkuñu ko kenn waaye nag alterne it ba tey ku ko mënaati nga teewaat sànd ga ndax fa la mbir ma xewe won kon fa mbir ma xewe won boo barkeeloo fii ci juma ji rafet na nga demaat fa mbir ma xewe won barkeeluwaat xam naa duñu duñu bàyyi duñu duñu dagg tee fàttaliku wu ñu suñu baay bu baax alaaji góor a sekk dëgg la ndax xam naa ne moom ca barab bala ne woon mhm. ah, ànd kook ñoom liggéey bi doon suñu baay jiite suñu kër gee ci Pikine yàlla dogal mu jóge fi ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli xéewalam dolli wéram sëñ xaadim sàmbit xam ngeen ne daanaka liggéey bi ci ëpp waaw moo ko doon coordonné waxtu waxtu wee jeex macha allah bokkoon na ci ñu waroon jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ ñu ngi lay santaat baax nag di ñaanal sëñ Bakki mhm. moom it yàlla dolli ko kàttan dolli ko wéram mhm. ndax liggéey yépp maanaam gën a wane sëñ Tuubaa rek lay indi donte wane na boppam waaye nag da koo rafetal kon ñu ngi koy ñaanal di ñaanal mbokk yi koy taxaw yëpp di ko jàppale asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf sëñ Yërim jërëjëf sëñ euh, euh, sëñ Abdoulaat ak sëñ ak mbooleem sëñ Xaadim moom mi coordinateur bi ñu ngi jégalu ndax kàddu gi waroon naa ñëw ci waaye ku ne xam ne ne waxtu bi weesu na sax dégg ngeen ñi ci réseau bi sax ñooy def noonu ay kii noonu pour di ñu xaw a kii yooyu waaw di soññee te wax nañ dëgg ndax saa bu lii jàllee am na leneen lu ci topp te heure boo jël jàll nga ci heure bu jàmbur loolu moo tax waaw ñi ñëwoon waa ñi ñëwoon ci bisu kanzu bi ñëpp sa Yëri maa ngi leen di mi ngi leen di sant ñu ngi sant mbooleem euh, caméraman yi àndoon ak ñun ak techniciens yi newoon ci régie bi di leen jox dig daje rek dimanche incha allah Masaalikul naan waaye tamit altine Sandaga noonu ñu ko waxee yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf